Euh, téléspectateur téléspectatrice yu Medina yi ñu ngi leen di nuyu fi ni ngeen daan nuyoo ci seen émission Ulil Albab euh, di nuyu technicien yi sëñ Saliou Ismaïl ak mbokk mi ñu àndal di nuyu réew mi yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi fàttewuñu benn yoon waa jàngu bi euh, di ñaan borom subhanahu def ci jàmm jàmm ci réew mi mu am ay xew-xew yoo xam ne nag tey moom la ñu fas yéene waxtaanee fii ci seen émission ulil albab ci Medina TV waaye balay loolu dañuy jaajëfal suñu invité bi weesu di maam maxtar Gueye bu Jamra ñu koy nuyu de passage ci prestation bu am solo bi mu fi defoon jox ñu ci ay information yu mucc ayib macha allah mu mel ni sax euh, ñu ngi déggaat yeneen information yoo xam ne. moom la concerné ci kuréel gi nga xam ne wala mbootaay bi nga xam ne ñoom ñoo ëmb boroom ñaari tur yi ñu demoon fële ca ministère de l'intérieur bu France doon fa sàkku pour Mame Makhtar Gueye bañ a ñëwati Europe maanaam bu ñëwatee di ñaan visa bu ko kenn may mu nekk persona no grata ah ñuy euh, gën a rek feddali suñu wóllëre ci Mame Makhtar Gueye di ko wax ne yombul waaye nag ñu ngi koy encouragé bu baax ci combat bi nga xam ne mu ngi koy mëne macha allah ah mu mel ni tey ñëw nañ tamit euh, ci situation boo xam ne ci réew mi maanaam tolluwaay réew mi ci euh, feebar bi ñuy wax euh, coronavirus wala mbas ñu tuddee ko mbas am ñu koy wax Covid 19 nga xam ne ma nga tàmbalee ca réewum Chine ñëw fii. depuis le 2 mars fii ci suñu réew mu am ay impact yu bëri nag yu mu defoon macha allah ci état d'urgence bi ñu defoon couvre-feu bi ñu bëri seen liggéey arrêté ci ah ñu wàññi ñu bëri ci seen euh, entreprise yi secteur informel bi doxatul woon transport bi tamit ñu arrêté ko tëj lekool yi tëj jàkk yi ak jumaa yi ba pare confiné nit ñi seen kër yi nga xam ne jamono boobu benn baat rek nga daan dégg mooy rester chez bi maanaa bu kenn génn ndax feebar bee ngi surculer te ku génn si biti amaana di nga ko gàddu yóbbuwul ko sawaa kër mu metti woon lool nag ñu waroon ñu defoon ci ay bilan tamit nga xam ne impact bi mu defoon ba léegi dañagul ñu bëri ñu ngi souffrir ndax li nga xam ne coronavirus defoon na ko waaye mu am benn jamono nag mbir mi xaw a mel ni lu fi jóge ñu doon dem bay dégg ay cinq cas par bés wala diis muy wàññeeku nit ñi seen xel di dal waaye lu jiitu loolu sax euh, njiitu réew mi joxe woon na ay kàddu ne il foog ñu apprendre à vivre avec avec le virus comme ni ñu koy waxee maanaam foog ñu fexe nu ñu dundeek jàngoro bi ndax dem na ba nar a impacter suñu économie nar ko nërmeel te su boobaa dinañ dellu ci famine comme niñ koy waxee ci xiif nit ñi dootuñu am lu ñu lekk ah ñu gisoon ne sax euh, njiitum réew mi itam góorgóorlu na ci ci wàllu woowu ndax doon na joxe ay ceeb ak i diwlin ak i saabu di ko distribuer ci kër yi loolu ñu koy saluer de passage waaye nag teewul ni wolof yi di wax naan daanu dajul suuf ndax ceeb boobu ak diwlin bi yëpp matewul woon kër yi ñu si bëri jotuñu ci courant bi tamit ñu ngi ci doon maye waaye ñu ci bëri jotuñu ci waaye nag euh, tey ñu demaat ba dugg ci Euh, seddaay bi amoon ay scientifique yu waxoon ne feebar bi li taxoon muy wàññeeku bi maanaam mooy jamonoy tàngaay bi ñu ne mënul évoluer ci tàngaay moo taxoon mu wàññeeku am na scientifique yu ko wax waaye ñu gis na it ba ñu duggee ci sedd bi mu commencé sedd nii tuuti si la ñu gis ne kaa yi commencé na jugaat loolu nag problème la waaye ci diggante bi waxoon nañ transmission communautaire waxoon nañ kaa cas contact waxoon nañu kaa importé waaye ci diggante bi am na yu fi xew muy màggal Touba am na fi te yaakaar naa ne foofu la cas contact yi war a gën a bëri ak cas communautaire gàmmu tamit am na fële ca champ de course euh, ñoo xam ne def nañ fa seen gàmmu ci mbooloo mu takkoo takku takku waaye itamit transport bi mu ngi dox comme na mu daan doxee marché yi tijj nañ ko ah delluwaat nañ ci jàkka ak jumaa yi waaye mu mel ni nag Covid 19 bi ba léegi jógee jógeegu fi mu am ay laaj yu ci samp nag. laaj yooyu nag xam naa du ñàkk dinañ génn dajeek askan wi am ñuñ ci laaj macha allah ñu def seen réaction ci mbir mi maanaam dañu dégg ministre de la santé bi nga xamee ne cas yi commencé waat na yokku moom nee na dàquñu delluwaat ci état d'urgence ak couvre-feu loolu nag am ñu mu tiital ñu baree bari bari ndax ñu ngi woon ci maanaam kaaw boo xam ne kaaw bu metti la ba léegi am na ñoo xam ne nekk guñu à jour bu ñu delluwaatee ci état d'urgence ak couvre-feu naka lay demee ci réew mi ak coono yi fi am yëpp yooyu ay laaj la yoo xam ne dinañ ko laaj askan wi beneen bi am ñoo xam ne ñoom vaccin bi la ñu joxañ baaraam nee nañ lii yëpp li ko ëmb rek mooy vaccin yi lañu ñu bëgg indil nit ñi jox leen ko am na ay boroom xam-xam yu ci am xëy na dinañ leen jege laaj leen seen xalaat ci mbir moomu waaye du tee dinañ ci laaj tam askan wi lan moo ci seen xalaat waaye ñun ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi nekk ay jullit ñun tamit am nañ ci taxawaay yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal na ci jàngal nañu ci lu bëree bëri ndax alquran bu ñuy wax naan fas alu ahla zikri in kuntum la taxlamuun bu ngeen xamulee dem leen laaj ñi xam ñi nga xam ne seen xam-xam moo màcc ci feebar bi ñi ci bëri solution yi ñu joxe mooy di raxas suñu loxo di takk masque yi di euh, euh, def distance su un mètre bu ñu duggee ci transport yi tamit ñu def kazalika noonu ci marché yi noonu ci jàkk yi noonu ñoom seen xam-xam ci loolu la màcc te borom bi subhaanahu wa taala dafa waxoon atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum na ngeen ma topp man seen borom topp yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor seeni mbiri àdduna ci kaw suuf su ko defee nag jullit bi li ciy taxawaayam mooy lépp luñ ko digal ci wàll woow moom mu taxawee ko te bañ ci indi xel ñaar comme que ñi xam loolu lañ ñu digal ñun nañuy taxawee loolu waaye yeneen yi si topp nag moom ay laaj la yoo xam ne dafa sampu muy vaccin ya ak ya ca aju yëpp waaye nag lii tam war a def jàngat ci képp kuy jullit képp ku képp kuy doomu réew mi ba ci waa ahlul kitaab ndax yàlla yàgg na avertir àdduna ngeen ñu teggi fi ñu teg seen tànk borom bi subhaanahu wa yàgg nañu averti ci alquran ndax lii yëpp bu amee itam suñu jikko rek moo ko waral te war nañu delluwaat xoolaat jikko yi bu baax a baax ndax yàlla li tax mu yebal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir wàllu jikko la innama bu istu li utammima makarim al axlaax nee na dafa yebal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu ñëw mottali jikko yi te borom bi subhaanahu wa taala jox nañu information ci alquran ne ñu li ñu dal yépp suñ ko xoolee ba ci biir suñu loxo ngi ci biir zahara al fasaadu fi l barri bi ma ay aydi naas yàlla nee na lépp fiñ ko tegoon fexe ngeen ba changer doxalin yooyu indi ci yeneen coppite yoo xam ne ci seen coobara bopp ngeen ko defee léegi nag comme yàq ngeen lépp ci kaw suuf yàq jéere ji yàq géej gi li yuzixakum baxda allazi amilu dinaa leen mosal conséquence u yàq-yàq yi la allahum yarjiun ndax ngeen mën a dellu ginnaaw kon yii xew yëpp si àdduna bi war nañ ci bàyyi xel ñun jullit ñi ngir mën a delluwaat bu baax ci suñu diine rawatina suñu réew bi nga xam ne moo ñu concerné ndax xoola diggante bi yëpp li fi xa li fi xew ci 2019 bi ba ci 2020 bi nar a jëm 2021 gaa yee ngi jël gaal gi di dem am na feebar boo xam ne feeñoon na ci géej gi ci mool yi Covid 19 bee ngi fi yu bëree bëri mu ngi fi ci réew mi di fi xew taxul nit ñi dellu ginnaaw ba léegi tey la foo gën a bëri tey la caaxaan gën a bëri te loolu war nañ ci bàyyi xel yàlla borom subhaanahu wa mu ngi ciy wax ci alquran naa ñu afa xasibtum annama xalaxnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun mu ne moo ndaxam da ngeen foog na yéen doomu aadama yi dama leen wàccee ci kaw suuf pour ngeen di foo di caaxaan rek déedéet bés dina ñëw ñu delloo leen pour ngeen rendre compte ci seen kanamu borom muy bés pénc te bés boobu nag yàlla nee na kenn du ko wutee te bés boobu ku nekk danañ la jox say téere jëf ne la iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba jàngal sa téere sa bopp doy na la seede kon bés boobu war na tax ñu xoolaat suñu doxalin ci kaw suuf ndax mbir yi lépp yàqu na ñu ngi ci aaxiru zamaan kon jullit li mu ci war a def taxawaayam mooy fexe nu mu delloo ci boromam am na sox ñuy wax naan dellu si borom ku ñuy wax naan nañu dellu suñu borom sax dafa mel ni dañ fa mës a jóge kon nañu yeesal suñu ngëm nañu gën a dëgëral suñu pas-pas nañu gën a toppatoo suñu jaamu yàlla ndax liy waral ñu tëj jàkk yi aj màkk amul loolu musiba la te ñu ngi toog di seetaan suñu delluwaatee nag ci état d'urgence ak couvre-feu ragal naa ne dina yegg foo xam ne duñu neex kon lépp lu ñu si suñu devoir ñun population bi dañ ko def waaye itam nguur gi nañ jël seen responsabilité nañuy tenir langage de vérité ci peuple bi nañ leen di wax dëgg nañ leen di wax la bonne information moo gën ñu leen di nëbbu ndax feebar yàgg na fi jabet a ngi fi cancer a ngi fi drépano ngi fi yooyu yëpp ay xeetu feebar la yoo xam ne mu ngi rey lu bëree bari waaw kon Covid 19 tam bu ñëwee nañ ci tenir langage de vérité wax ceeg nit ñi dëgg ndax population bi mën a xam loolu ñu mën ci préparer wu en conséquence lépp lu ciy xew rek ñu wax ko nit ñi. kon ku ci nekk dafa am responsabilité population bi am nañ ci responsabilité jur yi am nañ ci responsabilité waaye itam nguur gi am nañ ci responsabilité waaye itam. autorité religieuse itam am nañ ci responsabilité ndax ñoom ñëpp ku ci nekk am na ñoo xam ne ci ñoom lañ bootu te bu buñ leen waxee dinañ leen déggal ñoom it nañu jël seen responsabilité wax ak waa réew mi ci li nga xam ne moo fi nekk nii tey muy Covid 19 bii nga xam ne ah ñu ngi dégg deuxième vague. la duñ ci yegg ah loolu laaj la yu samp yoo xam ne incha allah bu ñu génnee dinañ dajeek population bi laaj leen ko si kàttanu borom bi subhanahu wa lii mooy li nga xam ne tey seen émission ulil albab indi na ko euh, ci seen émission bi tey ci Medina TV ngir rek def éveil des consciences fexe nit ñi delloo si seen xel yi ci ni àdduna bi di doxee ndax yu bëree bëri mu ngi ci li ñu waxoon rek sànq borom xam-xam yi nga xam ne wax nañ ci Covid bi ci wàllu vaccin yi ci nga xam ne noonu lay demee. ku ci mel ni docteur Thior waxoon na ci docteur ñaar bi nga xam ne moo nekk ciment assistance ñoom ñëpp incha allah danañ leen jege ku ci nekk ñu tàllal la suñu micro nga lu ñu ci ay leeral su ko defee askan wi jariñoo ko kon mbokk yi fa tabarakallahu lii mooy li nga xam ne seen émission indi woon na ko tey ulil albab ñu ngi leen di jaajëfal téléspectateur téléspectatrice yu Medina TV di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm di ñaan yàlla teggil ñu mbas mi yàlla na borom bi subhaanahu wa dotti fi ay xéewal yàlla bu ñu dellu ci deuxième vague bi ñuy wax yàlla bu ñu delluwaat tam ci état d'urgence yi yàlla bu ñu delluwaat tam ci couvre-feu yi ndax ay fitna lay indi te borom bi subhaanahu wa taala nee nañ ci alquran wal fitnatu ashaddu minal al xatli fitna moo gën a metti dee kon mbokk yi lii lañ leen indiloon fa tabaaraka wa ñuy ñu leen di dox dig daje ba beneen ajjuma ci seen émission ulil albab wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim